mbokk yi waa Fatick confiance bu mat sëkk lañu dugg sé ci tournoi bi gis ngeen suñu ginaaw duru Sané ñi nonu ndaysan xalé yi Fatick dar ko di soti ay butéel fune ne difa di ko ñu ko koy soti suñu mbokk internet yi ñongi fi ci jurbel ci drapeau chef de l'État ndaysan di 22e édition jurbel daloko ko bi mu ko année bi passé tay nak ñongi fi ci ci cummikaayu wa Fatick ndaysan gis ngeen ni duru Sané di ndanan bu mak bëre ak mbëru Kaolack bi daan ko jël bu rëy moom Doudou saane mais Doudou Doudou ñoo ngi lay nuyu Doudou lay wax sa fan si ñu lay seetaan ci waaw sant borom bi rek nañ yokku ñaane dañoo ñëw pour gagner waaw gagner moo ñu indi te dañuy gagner incha allah ci kattanu borom bi mais Doudou mu mel ni bii mooy sa première fois ngay participer ci drapeau chef de l'État waaw xool bi yàggu naa kaa bëgg mais ren la ko yàlla dogal damay ñaan borom bi itamit moom may ñu ndam ñu yóbbu ñu ay ndaw lañu dañuy liggéey lamb lañu gëm su lépp suñu ci lamb la kon lamb la ñuy kii lamb la ñu mën a toppatoo. mais Doudou ñu gis sa waay nga daan ko six fois. ya secret bi lan la. loolu mbiru yàlla la rek mbiru yàlla kese la. bilaay jaajëf Doudou mbokk yi Doudou Sané ngi noonu. ndeysaan na ko lamb bàyyi xel xale bi moom doomi Fatick ji kon du ñu def lu dul di leen dégtal li nga xam ne que nii moo fi xewandi ba ci kanam ñu dellusiwaat ak yéen.